يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلى من أتى الله بحلم سليم إبراهيم مولانا خير الجزاء ومنى خير الجزاء ومنى خير الجزاء ومنى نارك عولاك وسعاك ورفقك في الدنيا وأخراك فدوى راسمك والإخلاص متغنى في سوى الجاه كتبه وجل ما مساياك حمدي وشكري لمن كلي بعسارة لغارد دون صوت هند سرسارة وسنائي وردوان بأسيات مسخاد لي من دايما أنصارا لله كل دار مكرمة من حرت أن وفي هجم من سرى يا لسنا يا سرسان خصني سالي الخدر وابني صعيب وإسماعيل الله وسليمان دعوني نوصل يا صعيب وسكر يا أخي يوني الله وارنا يوسع إلياس وآدم دعاه ونا وسلكفني عيسى لوطي الله ويوسف وبإسحاق وخريم من أنبياء ورسل لك يا الله والملائكة طرا ثم سبتهم جبريل ثم بميكائيل يا الله وصائبنا في في لقاب نير وخل خلايق عسرائيل يا الله وبصابته ثم الأولياء يمان والعاملان من الأقبار الله وبصديقه وبالفاروح ثم بسي نورين ثم أبي سبتين الله بمالك سلم سايا بمالك سلم سايا بمالك سلم سايا silmasaaya silmasaaya def leen ni ñu màggal sayduna muhammad bi malikin silmasaaya saafiya bi hanifatin ahmadal mahmudi yàllaahu bi lawxe wal xalami maxfuusi suma biar si kalansi min wa bil kursi yàllaahu wal qurani wa bi tawriti suma bi maa daawud jaa bihi wa nuqiya lahu baliq salaati wa taslimin wa daylo wal aali wa sahbi wal aswaaji lahu wasbilana alayna rabbi aafiyatan wasilana alana rabbi aafiyatan wamlana xasa fi daarayni allahu waftah lanaa kulla baabin def leen ni ñu màggal bàyyi Serigne Saliou Mbacké waftah lanaa kulla baabin kunta faatihahu li saalihiina min alxayraati yallaahu waslu binaa nahja ورد مغفن سللا ورد جناح وسيطان يلاح وكمل كل ما نقصد وامنا كل نختار يا الله ولنا كل ذي سحب وصغر لم ويسر كل ذي تغسير يا الله طيب لنا عمرنا سحر لنا بلنا وابلنا رسح وتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تدير بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكل عاصما من كل مالكة ونجنا من بلاء يا دهر يا الله وآفة هقة مخسة محن محن سلسلة سدة والفقر يا الله إهانة خلة وسلة خلب حلب وفاد عطس والجوع يلاح وفنة والوباح وفنة والوباح وفنة والمباح والحرح ما خاح والبرح ما سرح والكد يلاح حر وبرد ونحب كربة نقم دل آلة الحرج والهام يلاح وهمة وأتاح يا دالة السلل والمسخ والخصف ثم الخصف يلاح وحلة مجنون حلة مرد ثم الجزاء بينه ونقصان يلاح ومن حبة الدنيا ثم آخرة ويف النعيمة يا الله يا الله يا من على كل شيء يا من على كل شيء قادر وعلى وارسل نصيب سواح بالخير يا الله إني سألتك خلبا خد متوى بأنواع من كثير النفح يا الله وتوبة خبلت محمكنة رفعت مسجة سلمت بدين الله وكم سلنا من سر سيغ سد مسر فمن وأسر وعيني الله وسر سعر خلق سيما مدليم وسواد سمي الله إني جعلتك في دارين سخته حسن نسينا فكل من جاء الله فلا تكلني إلى نفسي فأهلك كن مجيبني عيسما أدعوك يا الله واجعل لساني وقلبي ذاكريك معا عند الممات مع الإيمان يا الله سب اليقين في قلب بلا وجل خدعوا به لحاك لاقى يا الله ولجعل الموت راحة المبرأة لكل سهر وكرب داخل الله واحفظ لي جسمه def leen nii ñu màggal sëriñam Cheikh Ibrahima Fall wax fas leen gis ma xëy suruuxu faarixaleen fii xabri laatum la yenu dëhre yàlla وكن نسيري أني سعين ما دفنوا جسمي جسمي فصرت واحدا سمي الله لا تدم من ماحي ما خدرها بعنح بل في الكل ما أغصاح يا الله ونجني وجميع المسلمين معا ونجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ولا واغفر لنا ولا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ولا وصرنا إمنا والطف بنا وبها في الحون يا الله هنا تجاوز نرعمنا فما لا سواك وأتى البر يا الله في برشاق ما حبر كن لها وسلام ومن كروب وخوف نجي الله لا تح تبه بما ليست بخادرة ولا تخيب رجاء فيك يا الله واسقنا معاه من ماء كوثر من احترته من جميع الخلق يا الله من كان يرسل ساعة يغلق ساعة كفر ويرسل من يساك يا الله محمد دفلني نمجر سيدنا محمد محمد مسكين أخيار خيبنا لجنة الخلد يوم العصر يلاح عليه يصلي وسلم دائما أبدا وما خفوا لليوم الدين يلاح نجد دقلو ما دلوتي فنت أبداج بصاير سدي باتن جلي جنوك ماج damay wëlbati mbooleem wuy li soo ba fem yëpp di baatil bu di seetaan dama romb Sëriñ Musa neena dama romb ku seetal mu naa kay laaj ku jiital li ma jiital yow lu la neex laaj ma seen mbir ma mu jiital jurul ay gaaj ma foof jóg ni ko tuubal malaaka day gaañ te nag ki ma nañu dem ba Tuuba Cheikh Bamba sëriñ maam Cheikh Ibra Fall sëriñ Tuuba def leen ni ñu màggal bàyyi sëriñ Saaliw Mbàkke maa mi Seex Murtala sama sëriñ te ànd ak ki ma àndal ñu dem ba Touba ku ànd ak sëriñ Saaliw Mbàkke borom jom jeeg jumaay ji borom jàpp ndal borom lagan borom ndookaa defal ni ñu màggal bàyyi Seex Murtada te ànd ak ki ma àndal ñu dem ba Touba faral jébbalu moo gën torox su boobaa defal ànd mi yàlla ak Sëriñ Tuuba te yónneen li sa wamat nga jublu Tuuba ila baarikum ya naa su tuubo hukunu ma seexin loxo anibu mu xayaawu ka badirin nee leen ko taafeer awaa jëw xëru ma may ko téemaar Seex Bamba xarit Rasul si xamee Serigne Touba Mbakke ay Serigne Touba Mbakke ku setal ngërëmam bàyyi Serigne Saliou Mbakke ku setal ngërëmam yow lu la neex laaj da saafu di ceebu naloo puuj paaj ki jar di ko way Seex Bamba jar di ko way ay Mbakke mooy yoo taas damaa yëpp ci saxaaram. te laaju may paas sëriñ Tuuba Mbakke ay Mbakke moo jara way sëriñ Tuuba mooy xaddimu àddinaan tamaa dib géwëlëm moo selëg lu mbaajaan أبو الفدير أخن خدي متاع وساسبت حبيبي ونال جاع ستبالا بلا وخ yow ndegam xamoo daam yaaramu sangi mbàkke sangub sëriñ daam caqub kër maaram mooy ndigal ba niiraas ñi teew ak ñu asal du seen maas Cheikh Bamba asal du seen maas Xaadim Rasuul asal du seen maas ma way daama la gàttoon te gétti waa faas taraw yaarami faas ak rijaali muknaas alaalam ayna yaa misla sayxi kamaalan wa jamaalan asaala wasxi Cheikh Bamba du seen mappandoo du seen maas da ngeen déglu mbindam mi borom aras maas mbirum jës bu ba lam wax danaa ko jàmbaas ba ngeen xam ne Cheikh Bamba laa di rambaas sëriñ bee jara woy ay mbàkke moo ya yoo taas dama yëpp ci saxaarem te laaju may paas sëriñ bee ka diroog bu sama ba cig mool te dee xul wagul sa ta xul ba dem ñuul sa gaayub te ñangaten moo namee ñetteeg maata maatam dañuy collet ba tiimi la xiyaar Seex Bamba rëyul rëyul xale rasul Seex Bamba Seex Bamba xaadim rasul Sëriñ Tuuba Mbàkke rëyul def nit ñi ñu màggal bàyyi Serigne Saliou Mbacke Serigne Touba Mbacke réyul tuutiwul gàtt loon ba dem dooñ ay bu daare du ko kekkal danaa saxoog muñ dëx ko bi sana yaw sunu lay la aw siraajul salaami la naana lay la Cheikh Bamba dadaa muuru yëreeti kaala yu ñor rawaan yaa ngi ko daa féete wàllum nday joor su muuraay ba ni melxet sikkim ba ni laas di saf laari wurus moo ko jëkk ay faas Cheikh Bamba Seyal Cheikh ba ni laas di saf laari wurus moo ko jekk ay faas te xeesul ba ni pecc foful di aw ñuul yaram waa ngara tax mel ni jaani ngolool yow yaa di sam si soo daan Alaaji Fallu Mbàkke yow yaa di sam si daan jaaraama seex jaaraama seex Fallu Mbàkke yow yaa di sëm si soo daana Fallu Mbàkke ku ko sopp defal ni ñu màggal Sëriñ Falilu yow yaa di sëm si soo daan Fallu Mbàkke yaa di sëm si soo alaaji fallu mbakke yow yaa di sëm si soo mbakke yàgg ngay um nga lambi soo daan doo ko ni baraawu alaaji fallu mbakke du xotti saatir du tas yaakaar du dëw koy laaj ku laaj may la nga géejël sëriñ fallu mbakke xanniw la ana muhammadul al la ko way Cheikh fallu mbakke maa Cheikh Fallou Mbacké maa la ko way yoo seexuna Cheikh Fallou Mbacké yaa ngi mi fi may ma ci laa ah, ah, ah. law laa ko Cheikh Fallou Mbacké xëy wal du walwali kon bu walwalee te na ngeen way seexuna al fadilu fadilul fadlul asimul sirifun farisul fadlul alaaji fallu mbakke mbakke musoobe la ki moo njiitam moo wasila lool dem na xéewal yi baawaan dootul jeex abadan ku sopp Seex Ibra Faal def leen ni ñu màggal maami Seex Amdi Xadi Faal maami Seex Amdi Yaasin Faal jarama Seex jarama Seex Rafaal Seex Ibra Faal Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall jaarama maam Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall ana Baay Faal yi def li ni ñu màggal Cheikh Ibra Fall jaarama Cheikh Ibra Fall am ngay dërëm Cheikh Ibra Fall am ngay gërëm Cheikh Ibra Fall foofu say dërëm Fall jëndee ngërëm yow la musaam tabbal këram Fall ay junni daal nga daa joxe Cheikh Ibra Fall ay junni daal nga daa joxe xelama Cheikh Cheikh Ibra Fall jaarame maam Cheikh Ibra Fall ay ku la gëm Cheikh ay ku la julli na aj mag góor weeru koor yow faal amoo morom Cheikh Ibra Faal xéewal gi turu na te jeexate ku lekk naan ba màndi war koo maami Cheikh Modou Fallou Fall war koo santati maami Cheikh Modou Fallou Fall mënatuma jékki te nekku may njooy sëriñ Saaliwu Mbakke adduna yaa ka maañuy mënatuma jekki te nekku may jooy sëriñ Saaliwu Mbakke ci adduna yaa ka maañuy mënatuma jekki te nekku may jooy ku fi gën a bëgg sëriñ saaliwu defal ni ñu màggal baayu Cheikh Mourtala mënatuma jekki te nekku may jooy sëriñ saaliwu ci àdduna yaaka maa sëriñ saaliwu Mbàkke waaju ko xamoon mu xam laa koo mën xam du tax mu doy la sëriñ saaliw waaju ko gisoon mu gis la ku mën gis du tax mu saf la barsaq jël na waaju am maqaama sang ba faw xa kuy borom maqaama na ñépp def ni nu magal sëriñ saaliw barsaq jël na waaju làq xam-xam te la def yitteem ci sàkku am am atu kër diine yi ku sañoon am ku mel ni yow Cheikh Mourtala Serigne Sani la tànnal yaay jaadu Serigne ku ko sopp defal li ñu màggal borom daaru minam kër diine yi ku ci sañoon am ku mel ni yow sëñ Mourtala sëñ Mourtala Cheikh Mourtada Serigne Sali woo ñu la tànnal yaay jaatu Serigne Sal atu kër diine yi ku ci sañoon am ku Cheikh Mourtala Serigne Sali woo ñu la tànnal yaay jaatum Serigne Sall yow jomb nga nelaw fajar lu jiitu sax jullik fajar ngay jóg di jàng kay sikar di roy sa baay ba saaliw na ñëpp def nii nu màggal Seex Murtala ma Sëriñ Saaliw yow jomb nga nelaw fajar lu jeetu sax julli fajar ngay jóg di jàng kay sikar di roy sa baay ba saaliw man seex de sant naa ba yàlla buur defee ma faar ànd ak sëriñ bu làq cër ca ja baay ba ca ja baay ba ca ku am ku mel ni ñëwal nga wàll ma man du xuma ba ku mel ni Cheikh Mourtada kon ku yaakaar Cheikh Mourtada Serigne Saliou mel ni ñu màggal ko Cheikh Mourtada waawam Serigne Saliou war naa ni kenn bañu la ku am ku mel ni ñëwal nga war ma ko ma duxuma ba gis ku mel ni Cheikh Mourtada kon ku yaakaar Cheikh Mourtada ma Serigne Saliou ni ñu màggal ko Cheikh Mourtada wa ma Serigne Saliou war naa ni kenn bañu la Cheikh Mourtada sunu wasila mat nga sëkk te nan la yaay caatu ma Serigne Seex Murtala waam Sëriñ Saaliw yaay sunu wasila man nga ko sëkk te wóolu nan la yaay caatum Sëriñ Saal la ilaha illa la لا إله إلا الله Cheikh Ibra boo guddee jaam ñu fande la ilaha illa Allah faal Cheikh Ibra la ilaha إلا الله لا إله إلا الله فعل سيغفر لا إله إلا الله سينا بوك سخنا بلا مام جاي أبو دار دار فعل جاga لا إله إلا الله إلا الله sëy na boog soxna balla mam aboo daar daar faal jaga lay lay la la ilaala suuru maam sëy na bu njaay Cheikh Ibra Faal koor yeboola la ilaala la ilaha illa la la ilaha illa la la illa la Serigne Cheikh Fall bayib góor ña borom daaru bayre kamal nga mu du je ñibbil sa kër baay ngërëm nga doon ñaan am nga ko am nga ko je bil zakaan baay ngërëm nga doon ñaan am nga ko mamaada kase maa bu ale koore mu tiixi mamaada kase maa bu ayada koore waaw mu tiixi yàlla na ñépp am jàmm ñu ngi ñaan li mu fi barkeel lépp yàlla na ko yàlla nangu ni ma ko waxee rek ab barkeelu la woon ndax ni ko jëwriñ rek sëñ jéeni waxee nga xam na ni temps bi daara daar lu bari te waxtu waa ngi dem te waroon na ma jàng quarante ki minutes waaye yëfi day toll foo xamee ni moom il faut kenn ku ne bàyyi